nga waxaale te dañu moo daal di tàggoo àll heure bi moo ñu xamat. waaw su fekkee ne Malick yu yi la. Mhm. maanaam li ñuy tudd nii fase. Mhm. ñoom dañ ne bu amul seede. su amul sédé tay nit ki bu ko waxé soxnam fi fas bi day tàbbi même bu amul sédé même bu amul sédé seede légui na so démé ci yenn yi nga xamné wax mooy ulama shia yi ci aju ñu benn laay lañ jël ci wa ashhidu zaway adl minkum wa aqimu shahadata lillah ñu moom lañ jël ne su boobaa kon manam fase mi faw day ami sédé waye dal bu amul sédé bu ko waxé da fase ma day tàbbi su boobaa nag dañuy tambalé di compte su fase mat nak ñetti ñetti fas nak su boobaa li yàlla xam do xanaa xana leen ñu wax ñu balu ak bu baax di jéggul mbokk yi salam après ku ti nek rek mën nga ci sànni waale ci li mu wax ci mbirum fase gi dañu daal di tàggatoo waale ndax heure bi moo ñu xoj mm. ay ca imam Malick mm. waaw daanaka moom tànk na lépp mm-hmm. li fi wax moom wax dëgg fi yàlla masha Allah mm-hmm. amul leneen lu si nit mën a tegaat masha Allah waaye xanaa di waxaat ne rek yàlla li mu bind bokk na di wax ne mm-hmm. dafa sib wala sax dafa xaraam ne buggul sax góor ak jigéen di tàqali ko te wax na ba wax ni sax ci xadis ne rëbb na ki nga xam ne dafa séparé ñaari way dencante dëgg la yàlla ne baatu fase na mujj ci góor nee na góor loo mer mer mer mer bul foyee baatu fase baas fase naa la ah, que da koo sib mhm. comme yàlla moo ko bind dafa parce xam na li ci nekk moo tax léeg-léeg tamit comme ne fase naa sa nga dem ba sa xel nekkaat ci moom sa su boobaa day metti ci yow. day metti moo tax baatu fase mhm. mooy dernière kàddu bi war a génn dafa buy génn day fekk lu ñu xam ne lii moom comme ni ko imaam waxee. Mhm. faam ñu. moo tax même bu nga diggante ñaari way denc tax. Mhm. soo amee coow ñu wut ay arrangement. dëgg la xam nga boo gisee ci wàllu euh, sëy sëy bu koy tax lu tax ñu indi solo. parce souvent bu sëy bi yëngoo. di ci ay fasé mhm. ñoom mu nañ ko révélé ci biir dëgg la nañ comme ni nga wax léegi ñun suñuy sëy fii dañ koy takkee ci jàkk ji waaye tribunal moo koy tas te tribunal loi la xam mhm. mais man moom duma d'accord ci loolu mhm. ndax li nga takkee ci jàkk problème dellu ci parce que jege yoon ñun léegi am mooy takkee ci jàkk bu ñuy tas sëy bi tribunal la dem kon sëy dafa nekk loo xamante ni du benn fan du ñaari fan du fan à vie la mhm. kon ku ciy dugg mhm. war nga pare physiquement dëgg la war nga ko xam ne fi ngay dugg mhm. demoo pour dëgg la boo xam fi nga jëm di nga xam fi nga jëm fan la ay it comme niñ ko ñuy tàmm lañ koy delluwaat mooy nañ ko jàng ba xam ko ba xam ko surtout bopp problème yi ngay dégg yëpp du la dal. du la dal mais jigéen benn ko lu ñu koy digal tamit nga nga xam nga am nga am euh, caractère dafa baax. bu mhm. ma caractère sa jëkkër sa jëkkër la. Mhm. mais maanaam bu fekkee ki nga nekkal xam nga ne moom nii la mel. Mhm. war nga fexe ba wan ko euh, jikko yoo xamante ni du am fitu di àgg yow ci yenn yi. dëgg la kon daal loolu lañ ci lay wax dëgg yàlla imaam wax ci wàllu fase moom. mu ñu si dara dara dara lépp leer na. ma bàyyi la nga tàggoo toowaale. waaw xam naa di nuyuwaat plateau bi yëpp. incha allah di rafetlu jotaay bi. Mhm. di wax ni émission bi am na solo. Mhm. thème yi fi jàllale am na xam nga sëy moom dafa yaatu. dafa yaatu trop pàcc boo laal